allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp fii ci waxtu bi ci waxtaanu fajar ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ci wàllum xarale gi suñu bokk suñu doomu ndey di Bachiru Cissé ginnaaw buñ sante yàlla buur bi tabaraka wa taala julli si yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di ñaanal yàlla di sàkku ñaan di leen wax ne wa kullu amin antum bi xayr yan ñu ko yàlla fekkeeloo ay at yu bari yàlla bu mu doon suñu mujjuntilu tubaski buy ñëw yan nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi waaye lépp lañ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu te mu fulal ñu ko amin ya rabbal alamin mbokk yi yéen a ngi fàttaliku woon suñu waxtaan bu mujj biñ doon séq ak ñu ngi taxawoon ci fukki guddi yu njëkk yi ci weeru tubaski te mooy weeru zilxijja tey nag bi iznillahi subhaanahu wa ñu fas yéene ànd ak ci ba léegi fukki fan yu njëkk yi wala fukki guddi yu njëkk yi ci asra zilxijja bañ na asra zilxijja bés yaa ngi ci waaye guddi yaa ci waaw mooy fukki fan yu njëkk yi ci weeru tubaski ak événement ya si xew yoo xamante ne comp nañ si tuuti ngir ñu fas ni ko wéttalanteeg mbokku auditeurs Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar waaye nag xaajuñu bay jeexal fukki guddi yooyu fukki fan yu njëkk yi ci weeru Tabaski événement ya fa xew xew xew ya fa xew lañu ñu war a manqué ci ay yiw xaajuñu ko waxtaanee ba di ko dajal. suñu kemtalay kattan ak gàttum alwa ba ñu yàlla nattoo dong moo tax ñu àndi leen astuut la fukki fan yu njëkk yooyu lamboo waaye yàlla ñu yàlla may dégg ak topp lépp luñ si war a mën a dégg comme njëriñ yal nañu ko yàlla kattanal ñu war ko war a mën a dund amin ya rabbal alamin mbokk yi yal jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot bokk na ci fukki fan yu njëkk yooyu ci weeru tabaski ñu ne wuquufu arafa wuquufu arafa incha allahu bi iznillah ba ñu tolloo ci waxtu yi wuquufu arafa dinañ ko waxtaan ak yéen su ko defee képp ku nekk ci ñun mu war si manqué yiw bi nga xamante ne moo nekk ci taxawaayu arafa bi iznillahi subhaanahu wa mbokk yi bokk na ci njëriñ ya nekk ci fukki fan yu njëkk yooyu ci weeru Tabaski qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonenti yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam maa min ayaamin al amalu saalixu fi xinna ahabu ila allah min haadihi al ayaamin ashara fa qaaluu yaa rasulallah walaw jihaadu fi sabilillah fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walaw jihaadu fi sabilillah illa rajulu xaraja bi nafsihi wa maalihi fa lam yarjic min zalika bi cheyin saxiixul tirmisi mbokk yi yann jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ki yàlla yónni ci xeet wi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima moo ñuy baaxe njariñ importance dayo bu yàlla jox fukki fan yu njëkk yi ci weeru tubuski ba tax na mu baaxe ñu ci xadis bu wér mu ne ñu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa maa min ayaamin amul benn bés bés bi nga xamante ne ci bési àddina yi al amalu saalix fii xinna ahabu ila allah nit dina ci jëf jëf jiw jëf ji yàlla sopp li raw min haadihi l ayaamin achar ci fukki fan yu njëkk yi maanaam yonent bi dafa musa toog ak saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain yàlla leen yàlla gërëm ñoom ñëpp yonent bi daal di leen ne amul benn bés ci bés àddina yi ba doomu aadama bi di jëf ci bés boobu jëf ju yiw jëf ju baax jëf ju neex yàlla li raw fukki fan yu njëkk yi ci weeru tabaski ñu déggee ci maana bi mooy fukki fan yu njëkk yi ci weeru tabaski képp ku ci def jëf ju yiw loolu du bokk nga def jëf ju yiw ci yeneen bés képp ku jëf jëf ju yiw ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru tabaski ñu ne yàlla day sopp sa jëf ju yiw woowu mu multiplier la ko lu toll ni la neex moom yàlla allahu akbar kon yow mi yàlla jox li ne gàññ ginnaaw bi nga déggee xadis bi ci waxtaanu fajar bii di jaar fii ci réew mi FM jëlal li la yàlla wërsëgal nga comp si as tuut nga yéene si jëf-jëf ju yiw ba yàlla di gërëm ëllëg bés pénc mu fay la ko nga joxe ci ñi nga xamante ne mbokk yu jege lañu walla nga jox ci ñi nga xamante ne yoruñu te mënuñu laaj seen ngor ak seen dignité mayuleen ñuy ŋaang di ubbi seen gémmiñ di laaj defal sa investigasiyon defal sa recherche bi nga gis ni kii de njaboota ko dar te soxla na ndimbal te mënut laaj kooku lépp loo ko bettee ci guddi ci lu nëbb ci lu feeñ du ko musa rejeté du ko musa bañ da koy accepté ndax jamono ni toll yow it nga war a jaamu yàlla nga profito ndax daaw am na ñiñ fi nekkaloon ci momaaw tubaski anañu suuf tiim na leen ci kaw ñu ngi tëdd seeni tëraayu dëgg ba kon ñun ñu fi yàlla bàyyi du suñu ngóora yàlla ragaluñu app ba jotagut rek wallahi yan na yàlla guddal fan yi wéral cëri barkeel am am bi yokku maqaama bi yokku daraja bi yokku am am mbek xam-xam bi waaye xam-xam bi tamit yan na ko yàlla sellal lépp lu ñuy wax ci diine wala ci alquran wala ci njàngale yonent bi yan na doon yàlla rek kot képp yàlla buñ ci mus gis suñu bopp bi isnillahi subhaanahu kon yonent bi sallallahu alayhi moo ñu ne amul benn bés bu doomu aadama di jëf jëf ji nga xamante ne dina neex yàlla ba raw fukki fan yu njëkk yi ci weeru tëbaski kon weeru tëbaski baa ngi nii di teru buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi waaye nanga xam ne nu munti mel daal fukki fan yu njëkk yi nga xamante ne ñu ngi ci nii képp koo xamante ne war nga ci jëf-jëf ju yiw bu ko sàgganee bu ko doyadal ci ginnaaw góor góorlu ci si sa kémte lay kàttan na nga waajal quelque personnes yoo xamante ne nel ñii lépp luy dem ci seen wàllum xar maa leen koy gàddul keneen ka yàlla may barke moom mu préparé quelques personnes nee na lépp loo xamante ne ndawal bi loolu lay àndal man mi maa leen koy gàddal waaye nag ñoo xamante ne saane lañu ñu sant walla maane ñooñu ak jaxate ak siisek saaxo ñooñu de xataa ñu sant ture sax si ñu ngi ci biir waaw képp ku waajalal loo xamante ne daal keroog dañuy bég su ko defee képp koo gis mu sant sant bi ma wax muy reetaan rek xamal ne waaw waaw mbir yi jaar nañ normal yal na leen yàlla yokku xéewal waaw su ko defee nga waajalal sa bopp jëf ju noobul woowu nar ko partager ak képp koo xamante ne wóor na la ne yaa ko tane te mënut laaj jëf jooju nga jëf jëf ju noobul lay doon fa yàlla yonent bi nee na kenn du jëf-jëf ju noobul lay neex yàlla ba raw jëf yi ngi jëf ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru tëbaski moo tax mu ne maa min yowmin amul benn bés bi nga xamante ne al amalu saalixu fii xinn jaam bi dina fa def jëf ju yiw nit ki dina jëf jëf ju yiw ci wés ahabu ilallaahi jëf juy neex yàlla min haadihil ayaam be raw bés yi ñuy waaja lim ni di fukki fan ci weeru tëbaski jëf-jëf ju yiw ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru tëbaski amul benn jëf bi koy dab ci li yàlla di gërëm ci jëfu doomu aadama waaw lépp loo jëf ci jëf ju yiw yàlla dina ko gërëm de waaye du mel ni ba nga jëf ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru Tabaski bu dee yàlla day fay doomu aadama benn jëf ju yiw ba nga jëf mu fay la ci dix boole ko sa benn bi muy onze fukki fan yu njëkk yi ci weeru Tabaski yonent bi ne képp ku ci def jëf ju yiw borom bi dalay fay mille benn jëf ju yiw yàlla fay la mille ak sa benn bi muy un mille wala mu fay la comme num ko bëggee mu multiplier la ko comme moom yàlla num ko soobee ndax moo ne wallaahu yàlla yu daaifu mooy yokkal mooy multiplier man yashaa képp ku ko neex ak num ko neexee ndax xam-xamu calcul moo ko fi àndi xam-xamu mat moo ko fi àndi xam-xamu science moo ko fi àndi kon bu ne dinaa yokkal nit ki yow fexee rek ba dab ngir mànde yàlla donte mënoo koo dab mais fexee rek ba plongé wu ridwanun min allah waaw na nga plongé wu ci ngir mànde yàlla rek waaw nga takk ci rek boo ci takkee yàlla gërëm la waaw jeex na loolu mooy l'essentiel waaw l'essentiel bi daal na la yàlla gërëm bu la yàlla gërëmee moom yaa ku raw ñépp keneen ku yàlla gërëmul yow fexeel rek ba plongé wu ci ngërmande yàlla moo tax yonent bi ne amul benn bés ci bési àddina yi lu doomu aadama bi di def ci bés yooyee yàlla kontaan ci bés ci jëfu doomu aadama boobu li raw fukki fan yu njëkk yi ci weeru tëbaski fukki fan yu njëkk yi ci wéeru tëbaski ah jëf lu yiw yàlla da ci kontaan lool kon nañ leen góor góorlu suuraale ña seen loxo jotul seen ginnaaw nañ leen góor góorlu suuraale mbokk yoo xamante ne matale wuñu nañ leen góor góorlu suuraale képp ku ñu tane moo xam xarit la moo xam xame la moo xam mbokk la moo xam waaw yow fexeel daal ba tàbbil contentement ci xolu kenn koo xamante ne soxla na te mënut laaj yow fexeel ba tàbbil kontaan mbégte ci xolu jullit bi nga xamante ne mu ngi soxla te mënut laaj yow fexeel rek nga tàbbil kontaante ak mbégte ci xolam leneen li si des nga bàyyi ko yàlla waaw keroog ngay xam ne kontaanloo doomu aadama rawatina jullit amul dara li ko gën a neex waaw keroog bés pénc wala yàlla fayee loolu nga dugal ci xolu jullit bi ci contentement da nga naan ay yàlla delloo ma àdduna may kontaanloo nit ñi rek di leen bégloo wallahi waaye nag mal asaf ñàkk kaa xam moo tax yenn yoo xamante ne ndeysaan gars yi duñ si sawar waaye nag képp ku bàyyi xel waxtaanu fajar bàyyi jaar fii ci Rewmi FM su ko defee du ñàkk bala yàlla wërsëgalee nga tombeek la nga xamante ne mooy waxtaanu fajar bi ci thème yi nga xamante ne moo nekk njëriñ ba nekk ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru Tabaski amaana bu ko déggee yàlla dina la ci may lang ci for comme xam-xam wala nga jëlee si lang ci jëfandikoo kom njariñ su ko defee yàlla boole ñu yiw ba incha allah yonent bi nee na keroog bu mu waxee lii amul benn bés bu doomu aadama bi di jëf jëf ju yiw lay bégloo yàlla li raw fukki fan yu njëkk yi ci weeru tëbaski ndax weeru tëbaski da weer bu mag fukki fan yu njëkk yi yàlla dakaa jox gëdd képp ku si def jëf ji yiw jëf jooju day kontaan yàlla su ko defee saxaaba yi ñu ne ko fa qaalu saxaaba yi ñu ne ko wala jihaadu fi sabilillah moo ne xanaa ku génn dem jihaad fi sabilillah kooku jëfam nag mun nga koo méngale jëf bi yàlla di kontaan bi raw ki génn dem xeexi ci diine ngir fi sabilillah yonent wi ne wala jihaadu fi sabilillah waaw wala jihaadu fi sabilillah waaw kay donte ku génn dem jihaad fi sabilillah képp ku jëf-jëf ju jiw ci fukki fan yu njëkk yi ci wéeru Tabaski ki génn dem jihaad fi dabul ci yiw ki jëf-jëf ju yiw ci fukki fan yu njëkk ci weeri koor ci weeru tabaski astafurlah waaw ki génn dem jihaad fi sabilillah dabul ku jëf-jëf ju yiw ki jëf-jëf ju yiw ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru tabaski yonent bi ne illa lu dul góor gi nga xamante ne xaraja génn na ci këram bi yi mu yóbbaale bakkan wa yi mu yóbbaale alalam fa lam yarji min dalika bi cheyin del si waatul ak lenn ci bakkan bakkan ba des na fa alal ba des na fa xanaa kooku de kooku yàlla li muy kontaan ci mbiram ah lu toll noonu la yàlla di kontaan képp ku jëf-jëf ju jiw ci fukki fan yu njëkk ci wéeru tabaski kon ki génn dem jihaad fi sabilillah ànd ak bakkanam ak alalam alal ba des sax mu dépensé ko ci jullit ñi di leen financé di leen taxawu di jënd ngànnaay di leen jox di jënd dund di leen jox di jënd affaire lu ñuy soxla mu di leen ko jox moom ci boppam mu nekk ci front bi kooku alalam des si al ci xeex bi ci maakara ci bi ci xare ba ak bakkanam ba des si xare ba kooku yàlla ni muy kontaane ci moom lu tollu noonu la yàlla di kontaan ci fukki fan yu njëkk yi ci wéeru tabaski ku ci def jëf juba kon gis nga dayo bu tollu ni ki génn fii sabili la dem ci front bi alalam dessi moom ci boppam bakkenam dessi ñu ne lu toll noonu la yàlla di fayee képp ku joxe dara wala képp ku jëf-jëf ju yiw ci fukki fan yu njëkk yi ci wéeru Tabaski kon fukki fan yu njëkk yi ci wéeru Tabaski am na importance de nañ leen ko bàyyi xel nañ leen suuraale ñoo xamante ne yàlla dafa nattu ci ñoom loo xamante ne mooy la namm ci ñoom ci ñàkk wala ci ñàkk matale su ko defee ñu xamee ko noonu ñu bàyyi leen xel suuraale leen ci lu bari bàyyi leen xel ci lu bëri su ko defee mu doon peyor bu nga xamante ni keroog bés pénc bu ñu ko yàlla fayee dinañu am mébét bu toll nii ak a neexoon ñu dellu àddina ñuy financé di bégloo doomu aadama yi ci fukki fan yu njëkk yi ci wéeru Tabaski ndax keroog la ñuy gis résultat bi keroog la ñuy xam importance bi ba tax na fukki fan yu njëkk yi ci wéeru Tabaski dafa am loo xamante ne dañ koy màggalee yàlla mooy takbiraat yi moo mu ne at takbiraat fi chahri zilhijja takbiraat mooy allahu akbar allahu akbar li ñuy faral di baamu ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru tubaski nee na amma takbiraat fi l fa mashruux min awali chahr ila nihayati yowmi thalis min chahri zilhijja li taala li qawlillahi subhanahu wa taala li yashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuruu isma allahi fi ayaamin ma'dudaat wa hiya ayaamin ashara qawluhu taala azza wa jal wadhkuru llaha fi ayaamin ma'dudaat hiya ayaamin tashriq wa li qawli nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam ayaamu tashriq ayaamul akli wa shurb wa dikrullahi azza wa jal rawahu muslim mbokk yi xam ngeen ne sallallahu alayhi wa sallam la ñu wàccee alquran nee li mel nii di bàkk yàlla di ko màggal di wax ak takbiraat loolu sharia daf ko saxal ne dañ ko war a def ci njëlbeenu fan ci weeru tëbaski buñ ne tëbaski bi weeru tëbaski bi teru na dañu war a bàkk yàlla di ko màggal comme xeetu takbiraat yi nga xamante ne dañ koy wax ci juuru tëbaski bi mooy allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd xeetu takbiraat yi nee nañu keroog bu weeru tabaski bi teroo lañ ko war a tàmbali ñu di ko jeexale ci ñetteelu fan ci weeru tabaski ci fukkeelu fan ak ñett ci weeru tabaski la war a jeex su ko defee loolu yàlla suñu borom tabaraka wa moo ko tegtaloo ci alquraan moo tax mu ne li qawlillahi subhaanahu wa li yashhadu manafia lahum képp koo xamante ne dem nga aji màkk nee na sa aj boobu nga def su ko defee dinga nga teewee di nga seede njëriñ ba nga xamante ne mooy balle ci aj ba nga xamante ne moom nga def waaye nag du doy de yàlla nee na wa wa yadkuru smallaha ngir ngeen tudd yàlla nu mu gën a bëri moo tax nga gis képp ku dem màkk keroog boo gis doomu aadama yi lu bëri si ñoom lu ñuy def seen tuñ yaa ngi pat-pati ñu ngi naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu alhamdu keroog loolu lañ la sant nga def ko xataa yow mi demul màkk danga def sa kër nanga ko def sa gox nanga ko def sa palaas waaw yàlla nee na nag tudd yàlla boobu ngeen di tudd fii ay yaamin maalumaat la ay bés la yi nga xamante ne ay bés yu ñu xam la rek waaw ay bés yu ñu xam la moo tax mooy bés bi di fukkeelu fan bi fukkeelu fan ak benn fukkeelu fan ak ñaar waaw fukkeelu fan bi ak fukkeelu fan ak benn fukkeelu fan ak ñaar su ko defee loolu mooy ayyaamun ashara loolu mooy fukki fan yu njëkk yi ci weeru tëbaski nee na wa qawluhu azza wa bi léegi yàlla suñu borom tegtaloona ci alquran ci li tax ñu di ko tudd waxtu wa ak bés boobee mu ne wadkurullaha fi ayaamin maadudaat te ngeen tudd yàlla ci ay fan yi nga xamante ne fan yu limu la bëriwul ñetti fan la rek waaw fukki fan mooy bésu tubaski fukki fan ak benn muy ëllëg fukki fan ak ñaar mooy gannaaw ëllëg sa su ko defee mu nekk trois jours yi nga xamante ne la ñuy faral di wax yow mi dem makk yow mi demul màkk nga nekk fii ci Sénégal lan la ñuy bokk di wax mooy allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha allah akbar allahu akbar walillahi alhamd akbar yàlla màgg na allahu akbar yàlla fi gën a màgg akbar amul kenn ku fi day ni yàlla yàlla moo fiiti ñëpp ci kaw ci dayo ci melokaan ci jëmm ci lépp waaw nga teg si ne laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a sant amul benn buur bu ñu war a jaamu amul benn buur ki ñu wax ñu mel ni tey ku dut yàlla buur bi tabaraka wa taala moo ñu baaxee lu ñu nekkee ni tey yàlla buur bi tabaraka wa taala moo ñu féetu banneex ba ñu nekkee nii tey yàlla buur bi tabaraka wa taala mu muccal jaamam jooju ñu naan Ismaayil ci lakku ko baayam nara def te muy rendi ko taqeet keroog yàlla musal Ismaayil ci paaka ba nara dagg putum roofa xar boobu nga xamante ne tey ñëpp ko reynde amul kenn ku ñu porte plainte amul kenn ku ñu jiiñ amul kenn ku ñu yóbbu tribunal wala police kon yàlla mi ñu may xéewal mel yàlla boobu moo fi nekk amul dendandoor amul màppandoor amul maas moom kott képp dong dañ na set na wécc ci lépp lu ko nit di bokkaale jalla wa ala subhaanallahi amma yushrikun set dañ na ci lépp lëkku waaye di bokkaale subhaanallahi amma yushrikun yàlla booboo fi nekk mu nekk laa ilaha illa allah waaw ko defee baatu yooyu lañuy ñuy baamu ñu naan allahu akbar yalla màgg na allahu akbar yàlla fi gën a mag walillahi alhamd mboolem xeetu cant yi xeetu cant yu kawe mboolem xeetu cant yu mag yi yàlla dong moo ko yeeyoo du kenn du buur du buuru àddina yi du chef d'état àddina yi du borom alal du boroom xam-xam yi kan moo yeeyoo cant yu matale mooy jalla wa ala subhaanallahi amma yushrikuun moo tax nga di ko tëjee walillahi alhamd mboolem xeetu cant yu mag yi ñeel na yàlla kii lii nii yàlla dongo lañ koy wax duñ ko wax malaaka duñ ko wax jinne duñ ko wax doomu aadama duñ ko wax wëliwu duñ ko wax sëriñ duñ ko wax kenn ci mbindaa foonu yàlla lii yàlla dong moo ko yeyoo ndax titre bi moo ko moom keneen kuñ ko wax naxe mbay lay doon walla mokke waaw keneen ku dul yàlla képp kuñ ko wax loolu naxe lay doon ci jëmm jooju walla dañ ko koy mokkee waaye titre bi feju si moomu ko tudd ko musa moom kon lii nga di ko tudd bés boobu ngay sant yàlla ci anam bi yàlla di seedaloo malaaka yi ne gis ngeen sama jaami niñ may bàkke gis nga sama jaami niñ may màggale su ko defee jàkka yi ñuy baamu bu ñu julee tisbaar ñu wax ko bu ñu julee takusaan ñu wax ko bu ñu julee timis ñu wax ko bu ñu julee geewe ñu wax ko ci éleksi noonu ba ci gannaaw éleksi mu daldi jeex boole kook naan boole kook lekk boole kook saafwante boole kook sol yëre yu rafet macha allah di jéggalante ak di jéggalante bàkkaar kenn ku nekk bu dee suñu réew mi fii la Sénégal kenn ku nekk di wax ne Moodu baal ma ak baal naa la yal nañu yàlla boole baal ziyaare boroom xam-xam mu di la wax événement yeeg xew bi feet bi installé wu su ko defee mu tibbeeku ci suñu yonent yàlla maam Ibrahim ak doomam ji Ismail ak soxnaam sa après mu wàcc bi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax inna aataynaaka al kawsar fa salli rabbika wanhar inna shaani'aka huwal abtar loolu yëpp boroom xam-xam bi daal di ko détaillé nga gis ne ndekete événement bi ndeke xew-xew bi ndeke feet bi lii moo ko tax a créé su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis bi ne mu ne ayaamun tashriq bés bi nga xamante ne mooy bésu reyndi gàtt ya mooy fukkeelu fan bi ci weeru tubaski nee na ayyaamul akl bésu lekk la bésu lekk la kenn du ci woor wa shurb bésu naan la kenn du ci woor waaye nag wa zikrullahi azza wa jal bésu tudd yàlla la buur bu màgg bi mooy ban mooy lañ koy bakke kon fii nga déggee ne ñuy organiser baal ñuy organiser feccaka tubaka dal déedéet boobu du fii de fii ku ñu jox drapeau islam leeral na nee feetu tëbaski fukki fannu tëbaski bi loolu bésu lekk lak naan ak tudd yàlla waaw lu tax gay di organiser baal lu tax gay di organiser dancing lu tax ñuy organiser fu ñuy moyee yàlla ñoom dañoo déggul xadisu ah, yonent bi sallallahu alayhi lu tee ñu toog kër ga di tudd yàlla di bàkk yàlla di ko wéy allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd moo ne mbokk lii moo gën nga dem feneen fudul ci lii lii moo gën nga nekkee leneen ludut lii mbokk yi yàlla ñu yàlla may dégg topp waxtaan wi jeexul dafa fekk ne rek dañu war a jibal bërëb ba taskatu xibaar yu taxaw ñu nar joxe xibaar ci nasaraan saa'iliina mawla jalla wa ala an yaj'alana min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana allahumma ya rabbi taqabbal minna innaka anta samiun alim allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiun alim wa kullu amin wa antum bi xayr allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih a'immatana wa wulaata umurina allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafani llahu wa iyakum bima fihi min al ayati wa dikri al hakim aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum min kulli dambin fastaghfiruh innahu huwa al ghafuru rahim rahim rahim rahim